c'est la référence. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak Alfayda FM kaddu gi di bàyyeekoo ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé eh, fii ci dëkk bu sell bii di Medina Baye dal leen ak jàmm ma jukkil leen li gën a fës ci bopp xibaar yi eh, gisuñu seen bopp nag ci nguur gi ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu eh, ci wàllum aada ak cosaan nag gën cee fës tëggkatu sabar yi ci diwaan bu kaw Kaolack doon nag ay mag yàgg lool ci aar bi li ñuy sàkku daal mooy ngir nguur gi jox leen seenub ak seenub yelleef ak cër gi la jëwriñ ji nga xam ne moom nañu dénk wàllum culture ngir mu gestu leen seenu mbébét boobule daañu ca dikk ak Cheikh Tidiane ca diwaan bu Ndiaffate nag ki nga xam ne moo di docteur Ahmed Diallo doon coordonnateur Pastef nag amaloon fa ndaje jano ceek taskatu yi ci jukki daal jafe-jafe yu bari yi nga xam ne askanu Ndiaffate am nañ ko mu joxoon ca baaraam nag ki nga xam ne moo di bu Ndiaffate janoom boobule daañu ca dikk ci biir xibaar yi taxawal agropole centre mi tax nag ba xam ne ki nga xam ne di maire bu Taïba Niassène di Habib Niass nag daal di cay addu waaye itam naka ci boobu boobulee daal dinay indi leeral yi tamit naka ci tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci ndoddam ne daal moom dafay daal di jalgati wàllum suuf foofu foofulee ca diwaan ba daañ ca dikk ci biir xibaar yi buñ ca noppee daañ ca toftal xibaaru biti réew ak Alioune Badara Diop tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diagne ndar keppale ko li ci yéene kaay ak Seydina Omar Cissé bokk ci li fi nar a ci ay xibaar ngeen taaxi lu tuuti ma dugg ak yéen ci yaatal week faram fàcce bi gannaaw bàkk bi lay doon yi ak Mariama bàkk ba jib naa ba noppi Alfayda FM kàddu gi di bàyyi ko ci dëkk bu sell bi di Medina Baye juróom-ñeent fukk yu toftal la benn ngeen koy teewloo la ñuy ma ko junjee woon ca bopp ba noonu laay duggee ci yaatal week faram fàcce bi ñiy yëngu nag ci lool ci nag nguur gi ndax daal nee nañu joxu leen daal seenub cër gi nga xam ne moom nañu yelloo ci biir réew mi rawatina jëwriñ ji nga xam ne moom nañu dénk wàllum culture nga xam ne daal gëstuwut benn yoon ñi nga xamante ne bii ñooy yëngu ci wàllum aar faytee ci diwaan bu Kaolack euh, seenu pa kaddu Cheikh Tidiane Diagne moo ko fësal actuellement li ñu miti miti ba miti moo ñeneen ñu yëglu ci kanamu gouvernement bi nga xamante ne moo nekk ci réewum Sénégal jamono ji bokku ci ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàll aada ak cosaan ñoom nag ñu ne fi mu ne gàddu seen dàll teg ko seen digg bopp dal di yuuxu moo leen desee Diallo Guèye Seck ba géwél Kaolack li ñuy daj miti na miti goo xam ne amul kenn ku ñu jox suñu cër parce que feebaru baabu ngoom rek wane na ko ba yàlla def mu génn àdduna feebaru du njaay roosit wane na ko am lu mu doon mais Cheikh bu ma la ko mën a waxee kañ ga gëj a dégg spectacle tànni béer wala assemblée expérimentale wala 3 avril ñu ne suba la 4 avril tëggam amatut te loolu li ko indi lépp mooy dañoo tegul suñu place rek ku képp ku ne la dox na doxut kenn du na nag réew du am changement mais réew nag bu amee changement cin bu ne naree neex bu baxee prof comme ni ñu koy wooyee ci wàll gi nga xamante ne moom la nekk jamono ji nag mu mel ni dafa mere loola ministre bi nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug aada ak cosaan ndax dafa gis ne toppatoowul ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci wàllug aar te fare fii ci capitalu Saloum diwaanu Kaolack. dañoo gisagul ministre de la culture bi wootee wala même bu wootee nañu woo. te ñu yëg formation bi woowu kenn waxuñ ñu. tey ñun waroon nañoo mën a dajaloo ñun ñëpp wax li ñu bi ñuy wax ni gisuñu sama bopp parce que yëg bu ñu ko xaleeg léegi gisuma ñu ne ko fekkee nañ artistes yi place sàngam kenn ku ne ñu wax sa doléance ñi gën a fës ci artistes yooyee boo ñëwee ci dëkku mboose bi nag bokk na ci ay tëggkatu sabar ñoom ñi ñu ne fi mu ne gisatuñu ndaga wala li nga xamante ne moom moo di tànn beer meeting ak xeetu xumbaay yu mel noonee ñuy sàkku nag ñu defal leen benn kër goo xamante ne dinañ mën di fa nas ak a noccee war nañoo am maison boo xam ne bu ñu waree réunion fa la ñuy toog réunion dajale artistes yëpp ba ci régime Macky Sall bi nangam ma ne se man laa man ne affaire yi ma interrogé centre culturel ci lañ ma woo ali bu buñ sañoon doo da ngay ñëw waxtaan ak ñun ci ma leen man doonu ma koy waxtaan ci suuf damay yuuxu ba ñëpp dégg ba ñu xam ne artistes yi tegul leen seen place ay bongo mal la ñu jox ay cent quatre-vingt xam ne bokkuñ sax ci aar bi ñu ko ñu lay woo di la jox ay soixante-dix mille ak yu kenn xamul keroog bi ñu ma njëkkee woo dama leen soxlawu ma lu jëm ci wàllug caada centre culturel bu diwaan bu Kaolack moom Tambour major bii di wax ne ñu ëpp ci tëggkatu sabar yi nekk ci diwaanu Kaolack gisuñ ci seen bopp jamono ji nag tolluwaay jamono ak ni mu méttee ñu bare bari ci askan wi di wax ne xaalis bi circulé wul ana lan moo ko waral tëggkatu sabar yi ne lii mosul am ci benn nguur goo xamante ne mos na fee toog depuis 1960 bi Senghor jëlee réew mi ak tey jile. Ah, bu ñu nee tëggub sabar nag ci Kaolack xel nag dafay dem ci Ali sekk mu yàgg cee bay waaram la mu xamle nag mooy ñoom na li ñuy jëriñ ci ci réew mi bari na lool waaye nag ngir ñu xam ko euh, faw daal ñu jox leen cër bi nga xam ne moom nañu daal di yelloo euh, kàddoom Cheikh Tidiane Diagne moo ñu ko taataanal man ci li ma gis kàddu Birame Souleye rek war na leen a yee parce que kooku dafa rey aar parce que bi nguur gu bees gi ñëwee avant ñuy tabb duñ ko tabbee la mu njëkk a wax ku nekk dégg na nekkuñ fi pour ñu ñuy parrain nekkuñ fi pour ñu ñuy tuddee ay drapeau nekkuñ fi pour ñu ñuy tuddee ay spectacle kooku xañul géwél yi boppam la xañ ndax g nag fi la ko ñëpp ko ñëpp ba mu ngi muy dañ ko war a jox cërëm journaliste bu amul cim réew du réew mi du dox depuis ci Senghor a a euh, lu ko waroon a jiitu état moo waruloon di xaar sax am na fi ko artiste yóbbu yéen lan ngeen war a jëriñ ñun li war a jëriñ réew mi bëri nag te kuñ fi fal Sénégal fii ak kuñ mënti doon soo respecté géwél yi teg leen seen place jox leen cër bañ moom doo fi yàgg ndax mu doon ba géwél dafa am lu mu doon ne la ci journal ëpp la xam-xam te foo wax nañ la dëgg mais li am nii nii nii nii ma gis nii amul kenn kenn kenn kenn kenn ku kontaan ci lu bees ni fi ne mais seen secteur bi ni mu sooxee nii mbaa bokkoo leen ci ñi dem ci gaal yi rek gune yi. non ñun ñaanuñ yàlla dem ci gaal yi. parce que ñu ngi naab xale yi. wala ne yàlla buur gémmañ gu mu xar dana la jox loola. parce que kenn déggagul ci suñu élément yi ku dugg gaal yi dem dañoo fas yéene toog Sénégal yi nga xam fii la ñu juddoo yaroo fi xàccandoo dóorandoo woon ne fii la ñu am la nga war a wuti bitim réew soo toogee fii te xaar yàlla te am xol bu rafet yàlla dina la jox teranga ndax nag c'est gis nga ñu bëri ñu des ci ndox mi ñoo xam ne seen i mbokk gisuñu leen te foo yaakaar ne foofa la rek du boo toogee fii yàlla mën na laa jox bi ñu xam ne nañ bàyyi xel ba géwél yi ak artistes yi fi nekk dañ joxante cër Euh, docteur Ahmed Diallo nag mooy coordonnateur Pastef ca diwaan bu Ndiafat moom nag dafa amaloon ndaje janoo ak taskatu xibaar yi di ci doon nag jukki jafe-jafe yu bari yi nga xamante ne bii askanu Ndiafat ñu ngi koy dund te jafe-jafe yooyu nag te dina cay joxoñ baaraam ki nga xam ne moo di maire bu Ndiafat janoo ba ak Alioune Badara Diop. janoo ak taskatu xibaar yi moom la amaloon moom mi leen di docteur Ahmed di coordonnateur Pastef bu Ndiafat àdduna ak ci jafe yi nga xamante ni askan bi ñu ngi koy jàngonteel rawatina foofu ci commune bu Ndiaffate mu jàpp ni ni gestion mairie bi la nag dafa gàllu go si dara jubu ci naka la gënu yore bi yépp nga xamante maanaam bi parce que bi mooy lépp ne dafa jëm ci wàllu dépense yoo xamante question bi ma wax leen rek pour ngeen xam ne ñi ñu yor dafa leen toog maire bi moo ko laaj ñaari école yu tabax fan ak fan la waaye ak maire yooyu autorité suprême dund bi ngay dem di laaj ñaari école yu tabax ban dëkk ak dëkk ndax kooku maire jafe-jafe bi nga xamante ni nag ñu ngi koy faral di gis nag ci yéen ci gox yoo xam ñu bokk ci région bu Kaolack bu ci mel ni nag jafe-jafe ci wàllum ndox ak entreprise bi lee di Flexo mu mel ni nag coful benn yoon dëkk bi di njaafaat problème ndox dañ nekk ci jamono boo xamante ne ñun en tant que ay population dañu war am accès ci ndox boo xamante ne bu sell la ndox boo xamante ne aussi heure boo ko bëggee di ko fekk sa kër suñu mbokk jigéen ñi ñoo la nit du feneen njaafat la Kaolack a ngi nii Dakar a ngi nii flex principal flex donc loolu foo ñu jot ci suñu spécialiste nekk ci groupe bi wala suñu mbokk yi nga xamante ne ay kàngam ci loolu ci tund bi il faut ñu liggéey ci ba njaaxat ñu am ci ay résultats yoo xamante ne ay résultats yu bukki suul bukki bi nga xamante ne mekku ko nag ci wàllum suuf si foofu ci commune bu Ndiaffane nag. beneen tomb bi ñu ko mën moom nekk loo xamante ne ni chaque jour dañ koy gis moo xew ci Sénégal yëpp. moom moo moytu jàppal xibaar yi nga xamante ni moom docteur Ahmed Diallo di coordinateur Pastef bu commune bu Ndiaffate nag jot na àddu nag ci ay poñ yu bare bari ci noonu nag jot na nag àddu ne nag daana bind ay bataaxal jébbal ko ku ci mel ni premier ministre Ousmane Sonko ndaxte nag kii di njiitu réew mi di Bassirou Diomaye jaxaar fay jub ak jubal ak jubanti moom dong la woote ci suñu réew di Sénégal Euh, ca ndaje janoo taskatu xibaar yooyu lee nag lu jëm ci jafe-jafe ndox nag docteur Ahmed jàlloo àdduna ci euh, ci nag ne askan wi daal dañuy faral di fay ay facture ndox yu seer yoo xamante ne bii euh, jëfandikoo wuñ ko ca diwaan ba kàddoom Alioune Badara Diop moo ñu ko taataanal. donc naka la fexee tey dañu am problème ndox te li ci gën a grave mooy prestataire yi fi nekk. chaque mois ñu indil contribuable ak facture yoo xamante ni day gën a cher loolu il faut que waa jàpp wax ci xamu wax problème yooyu mais xam naa ne bind les critères ak yeneen dëkk problème yooyu la ñu dund donc les temps que ñu xool même bu fekkee ne ça n'interpelle pas directement la mairie problème yu ndox mi naka lañ fexe ba résoudre ko comme ça suñ soxlaa moom ñu ngi suñuy doom su waree sangu ñu sangu ci ndox mu set feebar buñ feebar mais aussi ñun aussi ñu mun a bokk ñi nga xamante ne nii dañuy profité ci mbir yi nga xamante ne moom la ñu yàlla defal te mu nekk amat porte te ay nit question ma jot a discuter lu bëri ce sont des acteurs communautaires ñenn ñi ci loolu lañ doon liggéeyee am nañ ay révélation yu bëri yoo xamante ne def nañ ko ci coordination bi question boobu noonu dañ ko étudier dinañ ko jox ay nit yoo xamante nañ waxtaan ko ba li nga xam ne moom la ñuy préparé ci ay weer parce que loolu aussi naa ci ñëwaat loolu moom ci dugub baaram mais aussi ñu yeggali ko autorité autorité yi notamment le ministre de l'eau et de l'assainissement moom mooy le docteur Cheikh Tidiane Dièye donc loolu il faut que ñu dugg ci baaram parce que problème yooyu nekkul problème yoo xamante ne ay problème yu normal bi ci gën a garaaw nag moom mooy le pompe moom mooy bi mujjee am maanaam nga xool suuf soo xamante ne ni ay béykat ñoom ñoo ko moom suuf soo xamante ne nii nit ñi foofu la ñuy béy nawet ngir bu nawet bi wàccee ñu mën ci envoyé seen doom ñu ñëpp daan jàngee di seen jaafat ñu mën leen ci inscrire ñu mën leen ci jëndal saak jëndal leen ci ay dàll mën ci sa njaboot di joxe dépense suuf soosu ko caxat caxatee ko borne dañ koy joxe man ma ci ban dinaa ne ko moo tax bi ñu ko déggee ñii naan ko ñu ci dara dañoo xamul xëy na parce que ñoo mos suñu plan yëpp mooy ni ñuy fexe ba foncier boobu ñu bañ ni ñu koy sécuriser jël ci mbëri jot si seen i njaboot lu bëri ak seen i nit ñoo xamante ni dëkk ñu sax njaafa suñ ko defee nag duñ ko dañ ko dañuy bàyyi ba cinq ans dix ans fekk terrain bi doon jar ay deux cent mille wala trois cent mille day dem ba jar cinq millions six millions sept millions lii mooy mobile dëgg-dëgg agissement yi ñuy def yenn ci tabax yi nga xam ne nag euh, mairie bu Ndiaffate nag daf koy amal ca diwaan ba te nag teguwul ci yoon bu ñu sukkandikoo nag ci wéyalu kàddu Ahmed Diallo moo ñu ko jukkil ci micro ba Badara Diop. xool nañ seen aménagement du territoire bi amul yow da def dara xalaatoo amul benn étude amul dara da ngay jékki-jékki samp bu fenn est-ce fii nga war a def dara bi wala fii nga war a def marché bi wala fii nga war a def garage mécanicien yi. loolu xam-xam la te boo demee ci ay communes yu bëri tey macha allah ñu ngi liggéey di ci def ay résultats yu extraordinaire mais nit ñu bëgg a di ñu jiite di ñu yóbbuwaat di ñu delluwaat ñu maam ci suñu jamonoy maam loolu dootu fi amati te incha allahu taala madame le maire leen amoon fii tey secrétaire municipal dafa liggéeyu mais dina ko jot su ko neexee bu tontu su ko neexee dañ maa tontu sama devoir lay def mais man xam nañ baax baax xam jaar ak parce ñii je leur ai montré la conversation yi ma am ak honorable Guy Marius Sagna te xam ne Guy Marius Sagna moom fu mu dugg moom dara la situation ci sa élimination bi elle est très simple te waa bi nga xamante ne si ñu ngi bokk nañ ci combat boobu boo demee ci la géej gi ci ay dëkk dëkkaan xorom si mu li xew c'est très simple ñun ci yàgg sa yi bi moom lépp lu jëm ci wàllu colonisation ak suñu parti bi ñun dañ koo teg fee parce que yëngal feesul suñuy bët société boo xam ne depuis 1914 muy fii di exploité rek waxuma la sax balaa xorom si de mais tam responsabilité sociétale la Salin amal waa Ndiakhate ak waa Kaolack quatrième point bi nga xamante ne aussi daf ma amal solo lool lool lool lool parce que suñ ko doon listé comme ni ma wax comme ni ma ko waxee du jeex moom mooy situation wala dex waa ginnaaw géej ñun ñëpp gis nañ problème ñuy dund pendant des années à chaque fois bu tawee nit ñi dootuñ mën a dem dootuñ mën a dikk tey ji bu fa accident amee nit ñi balaa ñu leen di génnee day jafe ñu ngi fàttaliku ñi nga xamante ne ñoo fa laboon atam pour nit ñi dem fa rek c'était tout un problème jigéen ñi nga xamante ne nii seen tànk dafa diis pour ñu génne leen fa sax jox leen ay soins médicaux problème la foofu seen activité économique yi sax maanaam depuis des années ñu ngi fa tabax benn genre magasin de stockage de fortune indi fa ay matériel ne dañ koy defar mais lu tax defaruñ ko ba léegi quel est problème wala maire bi da doon nax wala tactique politique la woon wala lan la woon donc naxaate yooyu yëpp nag dafa war a jeex mais principalement lu ñu jàpp moom mooy la question de l'enclavement du Waladekh dañ ko war a résoudre au plus vite parce que question équité territoriale la ak équité sociale a ngi juróom-ñeent fukk yu toftal benn ci diwaan bu Kaolack nangaan xarale yees yi tax ngeen koy teewloo eh, ca biti réew ñu dem ci wàllum eh, mbay mi la centre nag ñu taxawal ko eh, ci ñeent régions yi di région bu Kaolack Diourbel Fatick ak Kaffrine ngir naka ñu ci mën di bay lu ci toll daal ci juróom-ñetti meññeenteef yu ca gën a fës sax nag di mboq dugub soble ba ci nag pompiteer tax nag ba ki nga xamante ne bii moo di Habib ñas mi maire bu Taïba Niassène amal na ca waxtaan ci micro Serigne plateforme départementale la wax foo ko ñu xam loolu fu mu jógee xam nga nguur gi fi jógee dafa waxoon ne day def ay agropole agropole mu identifier cinq agropole maanaam ay zone yoo xam ne gis nañ ne am na ay potentiel maanaam ay bayteef wala en tout cas potentiel ay njariñ yoo xam ne war nañ koo saytu pour que mu gën ñoŋal war nañ ko gën a ñoŋal ko pour mu ñeexal ña dëkkee ca zone boobu agropole centre nag moo regroupé ñeenti région yi ñuy wax Diourbel Fatick Kaolack ak Kaffrine ñu ne dañ fi def agropole centre parce que ci biir zone boobu am na potentiel yu fi nekk yoo xam ne war nañ koo mën a gën a saytu gën koo exploiter mooy ci suñ ak zone bi mil maanaam suuna maïs arachide oño pomme de terre sésame sel ak riz donc juróom-ñetti potentialité yooyu moom lañ wax ne ci biir agropole centre ci ñeenti régions yi war nañ koo gën a seet nuñ koy ñoŋalee ñu ne ci kaw loolu danañ def module centre boobu mu ngay nekk biir def ko ci sur cent hectares kooku mooy war a xëmb usines yu mag yi waaye ci biir ré ñeenti région yi dañ fa def li ñu wax plateforme départementale maanaam fukki plateforme départementale lañu war a def ak juróom ñeenti région yooyu maanaam département bu nekk ñu def fa benn plateforme départementale bi ñëwee Nioro ñu ne ah duñ jël rek benn commune na fii la ñuy def plateforme départementale il faut que quand même ñu seet ñi ko war a mën a kii ñu teg ay critères pour xam ban moo ko ci mën a ëmb ñu teg juróomi critères ñu ne il faut que commune bi ñu koy yóbbu il faut que mu am yoon bu fa dem il faut que mu am assuré na courant nekk na fa ñu assuré na am na ndox nekk na fa ñu assuré na li ëpp ci mbayteef yooyu li ma léegi ñu ko fay am na fa benn bi mooy suuf bi assiette foncière ndax am na fa critère bu nekk ñu natte ko fukki point ñi siibale woon ci département bi ne juróom-ñetti communes yi war nañ ko mën a juróom-ñett yooyu bi ñu leen kiyee commission bi benn commission boo xam ne ministère de l' industrie ten moo présider commission ànd donc membre ARED ak ñeneen ñeneen ak ENAB ñu wër ci commune yëpp def seen enquête seen investigation bu ñu paree dem def seen rapport bu ñu defee rapport bi évalué tey ba génn premier quarante huit points deuxième Kër Madiabel ex execo ak Darou Salam quarante trois donc loolu moo waral ñu ne plateforme départementale Taïba foncière bi cinq hectares lay doon dañ koy war a tabax clôturer def fa bâtiment administratif def fa forage solaire def fa ay hangar ak magasin de stockage hangar yi mooy pour que mooy abriter ñi transformation primaire donc de produits ci misaal rek par exemple boo jëlee gerte mën nañ ko transformer def ko segal comme ni ñu koy defee fii ci unité municipale loolu da après ñi ngay envisager nag produit boobu dem Ah, lu jëm nag ci wàllum suuf nag dañu ko caa joxoñ baaraam tuuma moom maire bu tey ba Niassène ne daal moom moo daal di jalgati daal suuf sa faytee ca diwaan ba ah, tax na yit tamit nag moom mu daal di cay addu gannaaw kàddu yooyu lii nag mu ngi bàyyeekoo ci réseaux sociaux yi mu indi ci it ay leeral moom mi nga xamante ne moo di Habib Niass ñu teewlu ko ci micro Serigne Gueye loolu nag comme li El wax coow li jub nag gannaaw bu loolu amee dafa am ñu jóg dem dugg ci réseaux sociaux yi daal di wax ne maire bi délinquant foncier délinquant foncier nag mooy koy jalgati ci wàllu suuf nee ne dama arnaqué donc suufu béykat yi ñu jox ko tunkara tunkara nag ma nga Amérique tunkara nekk Amérique di wax fii ca di fii ay nit a ko jox li muy wax foofu nag la coow li soxee ko mu amee donc déglu nañ capté ay audio dans un premier temps tunkara dafa wax nii wutuñ ko dabu te dafa waa ne plateforme bi plateforme bi am na un million six cent marché lañ ko tuddee xom waaye am na ci juróom-ñaar fukki nit moom loolu la njëkk a dox na am na juróom-ñaar fukki nit doo xam ne ñi ngi Sénégal ñi ngi ci cabinet ministre ñi ngi ci këri marabu yi ñi ngi fii ñi ngi fi ñooñu ñooy dugal man moom sax des fois du ko yëg moom déjà loolu la waxoon au départ mais gannaaw bi dugal nañ ko ci ba finalement muy def ay audio parce que man bi loolu amee parce que lii daa gis donc ñu ne le délinquant foncier Habib Niass maire de ba Niassène donc lii loolu moom la yónnee donc ci réseau Souskëbé bi amee nag man ah ci def lii day bon peut-être que am na peut-être fu mu sukkandiku ba ne man damay nekk délinquant foncier damay nangu suufu baykat yi et cetera et cetera ah ci kaw la nag ci la porté plainte contre donc Amady parce que moom laa dégg moom ci réseau fossé Amady Yacine Thiam donc laa dégg ci réseau muy wax ah ma ne porte plainte contre Amady Yacine Thiam pour diffamation waaye aussi li mu wax ci réew yi daf ne aussi lii du fi am ma ne blocage menace de blocage de la réalisation d'un projet de l'État d'un projet public ma ne aussi diffusion de fausses nouvelles donc lii laa ko porté woon plainte procureur dañ ci jotee saisir gendarmerie donc ñu convoqué ko convoqué ñu toog ñu waxtaan ñu waxee donc moom compte tenu la mu fa kii la mu wax gendarme bi a na da koy téye gar téye ko garde à vue téye na ko garde à vue donc pendant presque quarante huit heures bi quarante huit yi bëgg a jeex anu pare dañ koy tëj donc am na kilifa yu bëri yu ma wax kilifa yu diin ay marabu kilifa ci administration bi kilifa ci dëkk bi ñu bëri donc wax daal ne naa ko dimbale naa leen dimbale ñaan ma njëkk bi tooñ nañ la waaye nag ci kaw loo nag laa ne naa kii parce que ñaari mbir rek ma fi ma ma ne man en tout cas je maintiens ma plainte maa ngi damay téye sama plainte booba ñu yóbbu ko kaso ci saasi donc wala ma ne ah bon baal naa ko en tout cas retiré naa plainte bi ñu ñu bàyyi ko nag bon bi mu amee ci cinq ma oo procureur na ko vraiment bàyyi ko mu def Euh, bu ñu bàyyeekoo nag ca diwaan bu Taïba Niassène dañuy daal di teeri ji ca Ziguinchor euh, gannaaw nag ba ñu nemmeekoo ne nguur gi nag jàpp na bés boo xam ne da cee amal waxtaan ñu bëri itam nag yaakaar ne waxtaan boobulee dafa jëm nag ci tas euh, bi nga xamante ne bi nguur gi sumb na ko ci yenn ci bànqaas yi lu ci mel ni nag au conseil des collectivités territoriales ak nag économique social ñi nga xam ne nag ñoo faree ci wàllum politique gi ca Ziguinchor nag ku ne wax na ca gis-gisa Mouhamed Sagna lañu cay àndal. njiiti réew mi Bassirou Diomaye Faye convoqué na assemblée nationale pour benn session extraordinaire ci alxames bi di ñëw ñu jàpp ni ñoo ngi waaj tass institution yi mel ni au conseil des collectivité territoriales ak conseil économique social et environnemental mu doon lu ñuy rafetlu bu ñu sukkandikoo ci militant Pastef bile. pour dissoudre les deux institutions mooy HCCT ak conseil économique social et environnemental dafa jaadu mu bind président assemblée nationale ne ah man de lii laa voilà comme man maa yor doole bi ren tey donc mun naa xëy rek ma rek ma def lii mais defu ko donc daf ko teg si yoon lépp lu muy def daal daf ko teg si yoon donc je pense que euh, lu jaadu la. militant bu Benno Bokk Yaakaar bi jàpp na ni li ni mel nekkul ab priorité pour sénégalais yi. diversion la comme ni ñu koy wax si olof mooy dañuy réeral nit ñi rek parce que du débat ay dissolution au conseil ak conserver ko pour man du débat loolu amul benn impact ci réew mi amul benn njëriñ ci réew mi à mon na feneen fi nga xam ne tey moom di xaar. koppar bu ñu corruption mën na dugg ci yeneen secteur d'activité bu ñu sukkandikoo ba tey ci militant Pastef bi de. bu ñu ko dissoudre milliards yoo dina dugg ci caisse état je pense que loolu lu jaadu la dafay permettre état mu rationaliser dépense mi mu xool vraiment xaalis bi fan la ko war a jëmale. Gora Gueye bu benn bokk yaakaar gisul euh, li lu ñuy def ni yëpp dëgg la sax ils le dire bu ñëwee dañ naan dañ koy def juste pour économie njaxanal xaalis mais bagage seeni la te bu mar sax du débat le débat mooy lan lañ fi digoon Sénégal yi laata ñuy amal boobule projet de loi ku nekk moo ngi joxe xalaatam wala gis-gisam ci boobule décision Euh, ca Ziguinchor la ñuy desandi nag askan wa it bokk ci réew mi euh, ba tax na nag li nga xamante ne bii moom la nguur gi mbébét ci tas nag yenn ci banqaas yooyu le euh, faw yi tamit ñu laaj leen ci seenub gis-gis ñu jukki ci ay kàddu Mouhamed Sagna moo ñu ko taataanal. pour dissoudre ñi ñaari institution yi man and naa ci. ànd naa ci ndax président bi doy na ma njiit xalaatam doy na ma xalaatam woolu ko la taloo ma xeex pour mu mën a yegg si réew mi ma bokk ci ko fal comme bu ne am na loo ne benn institution ci réew mi moom gis suñu institution bi na njëriñ ba juge ne luy war mooy nañ ko tas man ànd naa ci moom parce que man lu muy def nii lu baax la conseil collectivité territoriale bu ko waa ji installé ba léegi man personnellement je suis sénégalais man man gisuma loo xamante lu positif wala lu concret wala lu quelque chose lu ñu mën a wax ne lii moo ko apporté fii du doon proposé nañ ko tas nag mais président bu ko xalaatee ànd naa ci te ko wax dëgg yàlla man si sama critiquer wala da ngay dissoudre quoi parce que lan ñoom ñu ngi doog a nga fekk fee institution yoo xamante fii la nekkoon te mu bokk ci li Sénégal moo donc d' balaa loolu defe naa le premier ministre war def déclaration de politique générale am nit ñi xam Sénégal ñoom ñi ñu fal ndax ñi ñu fi jëlee ñu ak lu ñu mënti waxal def nañ fi dara te réew ñu jëlee leen fi ñoom ñu teg leen fi parce que dañ leen a yaakaar donc buñ leen yaakaaree teg leen bu ci baax yi 90 point 1 Euh, dugg nañ ca ñaareelu xaaju xibaar yi ñu koy teewloo fépp ci diwaan bu Sine Saalum Bawol ba jàpp Waalo ñu dem ca beneen xibaar lu jëm nag ci jiyee yi nga xamante ne bi taw yi da koy faral di ko indi euh, ca Sinthiou nag ca commune bu Ndorna euh, faytee nag ca région bu Kolda gannaaw nag taw bu ànd ak ngelaw ba mu fa amee ñaari nit daan nañ fay am ay gaañu gaañu yu métti ndax nag birig nekk moo daal di daanu seen kaw ki nga xam ne nag moo di Amadou Ba moom mooy sous préfet bu Ndorna daal dina cay addu indi ci ay leeral Isaka Dialli Badji fan di guddi ajuma jëm samdi am na benn taw bu am doole bu fi wàcc ànd ak ngelaw lu bari ci dëkk bu ñuy wax Sinthiou Madia ci commune de Ndorna arrondissement de Ndorna donc mu nekk nag euh, ay yàqute yoo xam ne gis nañ ko ci lu mel ni benn nékk bu daanu néeg bi nag mu daanoo am na benn brique bu dal ci benn xale ak euh, benn soxna ñooñu nag yóbbu nañ leen hôpital pour toppatoo leen sant yàlla ba nga xam ne gaañu gaañu yi aajowul woon ñu leen di yóbbu ba hôpital régional Kolda donc toppatoo nañ leen foofu ginnaaw loolu tamit euh, yëkkati nañ service yi nga xam ne ñoo nekk ci administration di service yi def action sociale ak euh, gendarmerie pour ñu ñëw constater dégâts bi def rapport bo ko defee bu ñu jëlee rapport boobu ñu mën ko jébal waa administration centrale ci li nga xam ne mooy programme mu filets sociaux filets sociaux nag dafa nekk programme boo xam ne nguuru Sénégal moo ko tëral bu ñi nga xam ne ne am taxawu leen ndax euh, tey ñii seen euh, néeg daanu na dinañ aajowu lu ñuy tabaxaatee néeg bi ak euh, yeneen ak yeneen donc ñu fas yéene defar liggéey boobu pour jàllale ko nu mu gën a gaawee di leen taxaw. ca jéeye taw yooyu it tamit nag ca commune bu Dingira it aljuma jàpp samedi taw ba fa wàcc nag am na ay dëkkuwaay yamu fa jot a yàq ak it itam nag benn soxna boo xam ne jëlee na ci ay gaañu gaañu yu métti Arona Camara mooy maire bu Dingiraay la ñu ciy teewlu. dañu fi am ndox taw yu bëree bëri yu ànd ak ay ngelaw yu fort a fort loolu na créé na jafe-jafe yu bëri si gox bi ci commune bi dèjà ci wàllu mbay mi rek am na ay toolu mboq yoo xam ne ne tey boo fa demee mboq bi yëpp mu ngi si suuf heureusement yenn yi nañ yenn yi dammuñ mais lépp mu ngi si suuf xam naa dina am ay dégâts yu muy jur si lële bi mais problème yi nga xam ne moom lañ gën a jàpp ne mooy jafe yi mooy dëkkuwaay taw bi vraiment dafa dindi toiture néeg yu bëri mën nañu compter lu ma fukki nekk ak ci dëkk bu ñu naan sàngule yoo xam seeni borom amuñu fu ñu nekk ñu ngi jéem a jàppalante ak mbokk yi nekk ci dëkk ba foofu noonu ci jafe-jafe yi tamit mooy yàlla suturaal nañu quand même am nañ benn soxna soo xam ne ne bu mu doon génn di évacuer ginnaaw bu benn partie néeg bi daanu xaw na am tuuti ay gaañu gaañu ñu évacué woon ko hôpital vraiment def ci li ci war waaye alhamdulilah par rapport ak euh, ñu doon ragal yàlla dimbali nañu même bu fekkente ne ba léegi ñu ngi am ay métit métit ci yaramam bi waaye par rapport ak niñ ko doon ragalee alhamdulilah donc bu loolu weesoo yàqu-yàqu ci wàllu dund yi maanaam tey xam nañ ne jamono ji dafa métti heure bi ñu toll dafa xaw a xat lu li ñu desee as ci biir néegi dugub yi moom mooy si bëri day tooy yenn yi ret néeg daanu ci kawam donc jafe-jafe boobu moom mu ngi loolu lañ nemmeeku ci ay tolof tolof yoo xam ne ni na fii ni ci commune bi ci ñaari dëkk nag lu mel ni fi nga xam ne mooy Sàmbule foofu la jafe-jafe yi gën a tare ak dëkk bu nenam baabu dem ñoom ñëpp nekk ci biir commune vraiment ñu noté fa ay néeg yu bëri yu daanu ak ay bërëbu tëddukaay yoo xam ne seeni borom moom lañ am amoon pour mbéykat di fa di fa tëdd yu bëri yi daanu yi ni toiture yi ñoo daj loolu daal lañ mën a wax ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la taw bi passé euh, jur ci ci gox dëgg la mairie bi dina def ay bi nga xam moom lañ mën ci jafe-jafe yooyu waaye tamit ñu ngi xaar euh, état central bi vraiment dimbali ñu ñi nga xam ne ñoo yor wàllu solidarité yu demee noonu jàppale njël yooyu noonu ba nga xam ne ne jafe-jafe bi dana xaw a oyof si ñoom ndax heure bi su say néeg daanoo sa nga doon denc dugub daanu dugub yenn yàqu ni am nu mu mel il faut ñu am dimbal pour mën ci génn donc ñu ngi ñaan nguur gi vraiment gestu baax a baax ñi nga xam ne ñoo lorule ci taw yi passé ñu bàyyeekoo nag ci jéeye taw yooyu lay dem nag ci wàllum yoon ak atte euh, fukki nit ak juróom taxaw nañu nag démb ca tribunal euh, flagrant délit TGI bu Kaolack ci nag ay mbir yu wuute euh, ci diggante lii ñu naan nag surpeine ferme ak nag peine bi nga xamante ne bii da koy daal tëdd mu jëm ci ñoo yi ca àtte boobule yaatal wi si seen chronique judiciaire ak Ndeye Fatou Cissé. gannaaw ay dossiers yu bare yu nu renvoyé ngir ay motifs yu wute tribunal de flagrants délits bu TGI bu Kaolack mujjee teye ca rôle ba fukki dossier ak ñaar ca fukki dossier ak ñaar yooyee xam ne ña nga ñeel fukki nit ak juróom ñëpp di ay góor seeni at doore ci fukk ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukk ak lu tekk fanweer ba ci lu yées tuuti juróom fukk ñett ca ñoom dellu ci seeni mbokk loxo juróom-ñetti nit ci fukk ak juróom yi nga xam ne nag ñoom la fukki dossier ak ñaar yi tribunal bi doon saytu la gannaaw seen àtte nag jëlee fa ab daan bu leen delloo ci prison ba ngir ay mbir yu ci mel ne nag sax ci agression menace ni ay tëkku jëfandikoo lii di yàmba yàmba jooje sax xam ne mu ngi wéy di jur ay njeexital yu doy war ci société bi tax ba bu weesoo ndaw yi nga xam ne ñooy taxaw ci kanamu yoon ñu leen di àtte ngir ne dañoo jëf li waral jëmale ci nit ñi mbaa seen alal loo xam ne nag dafa leen di tàggaleeg seen sago ñi jaay xeetu sinébar boobee di yàmba donte ne daan ya ñoom ña ngay wéy di daal di continuer seen activité ku ne ak lala la cay dugal la donte ne lay gadu antu ak daan yi nga xam ne mooy tukkee ci seenub àtte mu am ay soxna ak ay bant plombier bii di muudu ñeent fukki at ak juróom-ñett démb tribunal dakkal ay activité di diru ñaari at di peine bi nga xam ne nag moom la war a tëdd ca prison ba gannaaw ba ñu dëggalee ci kawam tuuma yi ko indi woon ci kanamu yoon maanaam ne file Kaolack moom prévenu boobee daf doon yëngatu ci njaayum yàmba ci audience su bu Kaolack boobee nag démb ci àllarba ji ñetti chauffeur ni ay prévenu ci ay dossiers yu wutee mujjee dellu ci seeni activité accident yu jur bakkan yu rot di li nga xam ne nag moom la ñu leen doon toppee daan boo xam ne nag duñu ko tëdd waral kon seenub liberte ànd ak alamaan boo xam ne daañu ko fay xabaar yi bitim réew xibaaru biti réew yi Alioune Badara Diop maa ngi lay dalal. maa ngi lay ziar baax a baax soxna Mariama xibaari bitim réew des koy door ci eh, ne jamono toll nag moo nekk réew ah, a am li nga bu Tchad nekk ginnaaw ci loolu nag jot nañ nemee ko yéen ci ay défi yoo xamante ni mu ngi koy taxaw di ko xaar ginnaaw bi nga xamante gis nañu nii eh, foofu ci réew bu Tchad nag eh, crise bi moom doonoon li nga xamante ni lu lëmbe woon la foofu léegi ci noonu nag ñu ngi nemmeeku nag fii ay fan rek daañu jublu ci li nga xam ne élection yi maanaam tabbu ay ndawal penc ndaw réew mi gi kat ñu mën a àddu ci jafe-jafe yi nga xamante ni askan ñu ko jànkonteel la Mouhamed Idriss Déby Itno moom mi la nag jamono toll jàpp nañu ni liggéey bëri bare mu ngi ko fi xaar te nag askan bi li am nañ yaakaar ci moom gis nañu ni doxaleen bi nga xamante door na ko nag ci fan yi nga xamante ci ko tabbu dal na xel baax a baax bitim réew wax ci tentative coup d'état bi nga xamante ne nag ñu ngi ko jotoon nemmeeku foofu ci réew nag jotoon ci ni ci moo yor wàllum doxalinu a si jàpp nag peine de mort moom lañ leen joto daan jot ci nemmeeku nag lu tolloog nag ñetti doomu aadama yoo xamante ni ci réew bu Amérique la ñu dëkk li ni mel nag jàpp nañu nag jamono toll kii di lieutenant colonel Rajabu moom mi yi nga xamante ni nag ñeel jugement bi nga xam jot na am ci juróom fukki doomu aadama yi nga xamante ni nag seen loxo laale na ci tentative de coup bi nga xamante ni nag mu ngi amoon foofu ci réew bu RDC Congo. xabaar yi bitim réew. jeexale xibaari bitim réew nag wax ci présidence bu commission union africaine jamono toll nag ñu gis ni réew bu Kenya candidature am ñeel li nga xamante ni moo di yooyu lii ginnaaw ca Nairobi nag jot nañ am na ko nag ngir kat mën jiite li nga xamante ni moo di Union boobu lii ci cérémonie bi nga xam amaloon nañ ko foofu ci réew bu Kenya jamono na mën si jàpp nag nag ki di Raila Odinga samp na ndëndam ngir kat bokk ci élection yi nga xamante moo ñeel commission union africaine. xabaar yi bitim réew. sant la gërëm la baax a baax euh, soxna Mariama fii la yem ci xibaar bitim réew yi yàlla mi borom jàmm tukku mu jàmmal nga jàmm yàlla ñu may jàmm jokko njëla baax. xabaaru tàggat xibaaru tàggat yaram yi Cheikh ti Diagne maa ngi lay nuyu. Mariama Ba fay naa la di la gërëm bu baax di la sant nuyu mbokk déglukat yi xibaaru tàggat yaram yi nag tey dañu koy tàmbalee ak li nga xamante ne moom moo soxal wala équipe nationale A bu Sénégal ay coppite am na ci direction nationale bi nga xamante ne moom moo soxal wala football ci équipe nationale A boobee ci réewum Sénégal gannaaw départu français bi di Régis bagaar mu doon ab communiqué boo xamante ne fédération sénégalaise de football ñoom ñoo ko daal lim nag bokk na ci lu jëm ci wàllug staff bi des di ko coppi euh, daal di teg ki nga xamante ne moom moo di Aliou Cissé muy sélectionneur national comme ni mu amee woon Pape Bouna Thiaw nag la ñu jàpp ne mooy doon jamono ji premier entraîneur national adjoint Teddy Pellerin nekk deuxième entraîneur national adjoint gannaaw départu Régis Bagarde moom mi fi nekkoon ancien entraîneur adjoint bu équipe nationale A bu Sénégal tournoi IFOA la ñuy waxtaanee ñaar fukki fan ci suñu kanam war nañu ko amal ci kàttanu yàlla Diallo euh, sélectionneur national bu U20 bi nag di Serigne Saliou jaa mu ngi wéy di def li nga xamante ne moom moo di ay pexeem ngir xool nan lay euh, daal di amalee li nga xamante ne moom moo di équipe bu mucc ayib foofee ca tubaab euh, Jalaaw Serigne Saliou nag daal nay convoqué ñaar fukki footballkat ak juróom te ñu doon seetlu ne ñaar fukk ak ñeent la doon ëpp ci li mu doon woo ñoo ñooñu nga xamante ne woo na leen di ay futbalkat nag bokk na ci Moustapha Diop di défenseur central bu Abdou Soumaré sociétaire bu ASC Cambérène muy ñaari xale yoo xamante ne bii mooy guleet ñu bokk ci euh, sélection nationale bu UNV ci wàllug football la lan ca mën a nemmeeku tamit bokk na ki ñàkk ñëwup Mouhamed Diop mi nga xamante ne mu ngi bokk ci euh, Férouz de foot bu Louga gannaaw ab blessure bu ko dal ci tournoi UFOA boobee Sénégal daal di bokk ci groupe B bi xam nañu ñi nga xamante ne ñoom la ko seqal gannaaw tirage au sort bi nga xamante ne def nañu ko ci groupe B Mauritanie Gambie Mali groupe A Libéria Guinée Bissau Guinée genn gi ngeen xam ak Sierra na ñu fàttali ne tournoi bi nu mel mu ngi war a tàmbali fukki fanak juróom jàpp fanweeri fan ci weeru ko septembre foofee ca Libéria. football bu soxal wàll ak jigéen ñi maam Fama Ndongo moom nag la ñu fal mu doon entraîneur bu jàppoo olympique bu géejawaay xibaar bi ñu ngi ko jibal talaata jële ñu génn ci supportu réseau sociaux yi Mame Fama Ndongo nag nekk entraîneur de formation boo xamante ne jamono ji ñëpp ràññee nañu ko ci fànn bi nu mel rawatina ca banlieue bu euh, Géejawaay mu wax ne dina coppi li nga xamante ne moom moo jëm ci euh, wàll googee ngir mbir mi gën a jëm ca kanam mercato la ñu koy euh, jeexale dem foofee ca Lyon Amine Sarr moom nag dal nay yóbbu ay bagages am jamono ji ca Ela na nekk foofee ca Italie saison bi nga xamante ne nag moom la ñu génn mu ngi woon ca Wolfsburg Amine Sarr nag mën moo di ca club ba muy euh, waajal euh, bu fa demee dina fa nekk ba 30 juin atum cinq loolee di ab xibaar boo xamante ne gis nañu ko ci club francais bi ci benn communiqué boo xamante ne génnee na ko ci talaata ji ñu euh, génn lii moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram gi soxna Mariama ñu yem fii gërëm leen delloo leen njukkal sant leen it jërë ngeen jëf. ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Cheikh Tidiane Diagne ñu desandi ba léegi rek ci xibaaru tàggat yaram yi lu jëm nag ci nawetaan yi nag ci diwaan bu Kaolack nañu ko amale woon ni gi daaw la ñu koy amalee reen ji di xamle nag yu Essa Diouf mi président ODCAV bu Kaolack ñu teewlu ko. c'est-à-dire que année aussi nawetaan dina am. comme ni mu amee woon daaw parce que l'ODCAV bu ñu réere mbir que ne c'est pas la commune de Kaolack kese c'est réparti dans le quatorze communes du département communes yooyu aussi organiser nañ seeni nawetaan daaw ba les phases départementales ñu ngi ko organiser finale bi au niveau de Ndofane dañoo defoon ce qu'on appelle euh, zone boo xam ne am nga stade dañ fa organiser des matchs départementaux muy Gandiaye muy Ndofane muy Kahone ainsi de suite parce que l'ODCAV image boobu la war suñu amoon stade aussi dañuy continuer di def loolu parce que dañoo demoon benn moment ñu gis que ne phase départementale période bi muy commencé day mel ni coupe du maire biis la ñuy def parce que équipe bu Kaolack kese ko doon joué parce que da nga doon dem ko le département ñi nekk ci les zones rurales seen jours yi newatuñ fa duñ mën a participer on a dit que def di ko teel indi ñun aussi su équipe yëpp commencé zone yëpp commencé dans quinze jours war nañ mën a commencé les phases départementales donc pour permettre ñëpp ñu bokk kon donc zone yi ñu ngi participer bu baax a baax ñun aussi au niveau de Kaolack, lors de notre réunion, j'ai demandé au président de zone que ku bugg a jouer dans les terrains vagues parce que yàgg nañ di jouer dans les terrains vagues nawetaan loolu yàgg na fi effectivement au lycée l' inspecteur jox nañu autorisation pour ñu utiliser certains lycées pour ñu jouer fa donc maintenant c' au président de zone avec les ASC qui sont autonomes ñoom ñooy décidé nax dañu jouer wala duñ jouer je crois que am na ci zone yoo xam ne comme lu mel ni la zone 4 ñoom jël nañ la décision de jouer en junior senior am na je crois que zone mu ngi ci woon mais am na tuuti manquement zone aussi bu les ba ñoom aussi nee nañ dañuy jouer mais demande nañ à ce que am na loo xam ne mënuñ ko comprendre c'est-à-dire que les cadets que ñu am stade que ñu am stade ñëpp xam nañ ne cadets yi ci terrain vague lañ ko doon jouer pourquoi pas cette petite catégorie là mënuñoo kon ne dafa leen donc et presque toutes les zones se sont engagées pour jouer en cadet Euh, lu jëm nag ci defaru licence su ASC yi nag teg nañ ko ci xarale yees yi maanaam daal mun nga jëfandikoo sa téléphone ngir nag mun a bindu ngir am nag ca licence yooyu lee bu ñu sukkandikoo euh, ci wéyulu kàddu Essa Diouf ñu teewlu ko. ren innovation bi ci am avec la digitalisation bi nga xam ne commencé woon nañ ko. ASC bi da nga doon jël say licence ñëw ODCAV defar si ko fi. mais cette année. ASC bi mooy defaral licence. c'est-à-dire c'est comme la fédération ni muy demee soo gisee bi ñoom ñooy defal seen. licence mais fii li tax mu xaw a jafe mooy ñun ASC yi yaay defaral sa bopp licence mm. te biñ koy jot dafa yéex mais ci defaral licence bi dafa am deux formes y a ce qu'on appelle l'enrôlement la délivrance mooy kiy doog ut licence y aussi ce qu'on renouvellement léegi ci enregistrement licence bi pour la délivrance dañ lay exiger téléphone bu am NFC d'abord et pour nga dugg ci da ngay connecté wu aujourd'hui soo demee au niveau de Dakar ils n'ont pas ce problème là mais soo jëlee tey par exemple ASC bu mel ni sa s waa Kër Ngor mun nga dem tey ba biir zone bi doo gis koo xam ne am na marque téléphone bu am NFC bañ a ñàkk am connexion kooku moo war a toog respecte procédure yëpp dugal licence su ko dugalee licence am ba pare ba mu accepté ko mu ñëw ODCAV ODCAV su ñëwee dina ko gis ci plateforme bi nga fay ODCAV validé ORCAV tiré su dee renouvellement nag jarul NFC bi da ngay jël sa terme parce que loolu ASC yëpp xam nañ ko léegi ñoom ñooy réaffilier seen bopp à partir de leur niveau da ngay dugg ci sa téléphone ku nekk am na sa code sa mot de passe nga dugg ci plateforme yu affilié bi noonu lañ koy defee du poser problème mais am na benn aspect bu ci am bu am solo mooy que ne mënoo renouveler te carte d'identité waa ji ñëwul. Hmm. jour bi parce que bu njëkk ba mënoon nga renouveler te doo jot carte d'identité léegi dañuy empêcher jour bu ci nekk. tey ku renouveler sa licence di nga xam ne yaa joxe pour ñu renouveler la sa licence. Ah, parce que ci technique bi. il faut que nga photo la carte d'identité. nga scanné ko dugal ko ci. su dee jàllul il faut que le jour se présente physiquement pour nga mën ko foto pour mu jaar loolu je crois que avance la ci biir du lépp moo bon. mais difficulté bi mooy. on n'a pas préparé les ASC. par rapport à ça et que problème mu boobu ak connexion bi da dem dans des les plus reculés am na ñoo xam ne dañuy am difficulté c'est-à-dire il faut que on aussi on cave revenir une chose pour comprendre que le navétane c'est pas seulement les réalité de Dakar mhm. c'est pas les réalités de Thiès et autres donc moo tax ñun vraiment comme te on a une mission boo xam ne dañoo jël jiital ñu pour que ñu dox ci affaire bi on s'est concerté et c'est l'occasion ah dans cette tribune de féliciter exceptionnellement la commission digitalisation de l'ODCAV de li ci yéene yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. li ci yéenekaay yi ñu ànd ci ak Seydina Omar Cissé lan bikum pencum ndawum réew ma di assemblée nationale fa fas yéen a nekk arbitre niki tey ci alxames ji tas gi président Diomaye Faye bëgg a tas au conseil ak conseil économique yi fi fay jàll wala du jàll si du quotidien fa xëy di ko xamal wal fajiri yéen a kaay mel ni ku naan lan hé faa bëgg ngeen def ndànk da yéen député yooyu gis nga ngeen wote loi bi ak ngeen ñàkk koo wote faa bëgg ngeen xam ne paaka ñaari boor la boor bu ne fay dagg le quotidien a kaay ne tey kay yëf yi fay leer assemblée député ya jàpp nañ dadde li ñuy wax plénière moom la ñuy def tey ci suba vox populi ne man nag faa ragal ay kurpeñ fa faa nar a jóg ci ay kàddu ndax yëf yi du yomb de ñàkkante fa nar a tàng de te mooy a kaay ne député bennoo yi kay fa ñoo xam soxla président Diomaye fay lii mu teg seen loxo nii faa jàpp ne duñ ko wote de député benno yo fa ñuy dàq projet bi maanaam xànduñ ci ñu tas au conseil ak conseil économique donte njiit réew mi fa wax ne ngir yaxanal xaalis la critique yéen a kaay ko hee ñoom député yooyu benn bokk yaakaar yi mooy seen ak dee c'est fini intaha assemblée nationale président fa koy tas su boobaa léegi su boobaa ñoom fa ñuy fori new lii yéen a kaay na man daal faa xamu dëgg-dëgg lan moo tax président Diomaye Faye bëgg a tas au conseil ak conseil économique le soleil na ko xaay ayoo xanaa fa ngaa déggut kerek li mu wax au conseil conseil économique ay milliards yu du xaaju jeex lañ leen di fay par weer te ay responsable politique yu farak Macky Sall rek moo fa nekk fañ leen ko jafe-jafe askan wi loolu moo tax ñu a kaay na ko voilà démb ca conseil des ministres fa wax ci wàllu yaxanal xaalis bi nga xam ne moom la nguur gi di dundee fañ koy yaxanal fañuy takk suñ ceinture yi wàññi li ñu dépenson ba ca njëkk mooy lépp lu état bi doon jënd ci ay jumtuwaay informatique ak électronique ak meuble ak ay fauteuil siège ak lépp loo xam ne ñi liggéey ci nguur gi fañ ko doon jëfandikoo seen bureau yi budget boobu waroon koo jënd ci 2024 bi fañ koy neenal maanaam lépp loo xam ne daal du farata ko jënd bés bi yéene kaay na ko ji nguur gi di dundee fa wax ne subvention yuñ doon amal ak ñuñ doon jël ñu nekk ay mission bitim réew nekk ay agent de l'état yooyu fañ koy wàññi naka noona tamit fexe ba tabax yi nga xam ne état bi moo ko moom ak alalu nguur gi nekk ci loxo ñenn ñi fañ koy nangu laa si yéen kaay na Sonko kay xam nga lu mu xootee goqi national ku ci sexoon milliardu askan wi fa lay wër na fa nga koy goqi de le regard kaay na ko voilà faa lañ ci yokkal wàllu goqi national googu ngay wax ki fi nekkoon ministre des finances ak budget ci mburu Macky Sall gu mujj gii muy Moustapha Ba é boo moytuwut kaso la jëm de fañ koy tëj le regard yéen kaay ne wàllu détournement këpp kees ak xalal ju waroon a def mu yóbbu ko fane nag doxalin bu jaarut yoon cour épinglé képp Moustapha Ba bi nekkoon ministre des finances 17 milliards yu ñu tibbee ca xaalisu corona ba xam luñ ci doon fay ak luyel ko nguur géeg yi ni mel gars yi fa ñoo jàpp na yëfee leerut doxalin ba ki dox dem ba ca aéroport ba bëgg a dugg roppalaan dem France muy Lat Diop nekkoon fi moom ministre bi ñu dénkoon tàggat yaram ci nguuru Macky Sall gi weesu takk dere fañ koo jàpp Lat Diop fa ñëw bëgg a tukki takk dere na ko xalaa ma ndir bàjjo xalaa xalaa doo fi jaar mun leen lu tax ma fi jaar ñu ne ko déedéet yow mën a goo génn réew mi fa xam ay yoo xam ne ñu ngi koy def pareeguñ ci yow di fa ngay dem sa kër xam nga sañ-sañ nag doxi say soxla ci biir Sénégal waaye moom mënoo koo génn Lat Diop na leen waaw ma ne fa ngeen a foog na faay daw man dawuma de te samay avocat fa wax ak jëwriñ ju dénk wàllu biir réew mi ndax nii fa ñoo salfaañe loi bi kàddoom yaa ngi ca l'observateur sur sa ay yéen kaay moom fa ñoo xamal ne daaray kocc théâtre kat ya moo xam fi mu toll nii ca ONAS <laughs> yow seetal jëwriñ ji di Cheikh Tidiane Dièye fa bind bataaxal DCNP ngir renoncé wu ci entente directe bi ñeeloon Delta ak Villas benn fan ginnaaw bu mu defee loolu ki nga xam ne moo remplacé léegi Cheikh Dièye mañ fa dàqe woon moom fa ëlbatiku mu ci sàkku entente directe ay waay ndaw sàmb bés bi yéen a kaay fa ñoo xamal ne waa rado yi fa ñoo ñaawlu tekk tekkaaral gi procureur tekkaaral ginnaaw tëkk yi nga xam ne ñenn ci waa Pastef yi fañ koo def alintin la mu def moom Cheikh Oumar Anne mooy dugal loxom bu baax a baax ci projet satelit bu njëkk bu réewum Sénégal naawal ci jaww ji te ñu tuddee ko gaynde Dakar Presse yéen kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom réew mi yéen a mooy na Khalifa Sall ñaar fukki cadre ponkal yu nekkoon ca seen parti ba taxaw Sénégal fa ñoo bàyyi Khalifa Sall wan ko ginnaaw ndax fa wax ne Khalifa fi mu toon ni fay waxtaan Bokk Yaakaar yi ngir ànd ñoom def coalition te ñoom na loolu xel fa ko nanguwut Khalifa Sall li mu yàgg a wax sénégalais yi doon ko jëfee mooy opposant la élection njiiti yi ñëw ñu xaw seen yoonu bopp terewut Diomaye ak Sonko mbuqi leen mbuq yi métti ba ñuy bëgg dee seen bureau de vote yi sax fañ leen faa mbuqi waaye loolu warta tax Khalifa Sall dem di ànd ak benn bokk yaakaar moo tax ñoom bàyyi nañ Khalifa de le mandat yéen na Khalifa kay kaadaram ya fi mu toll ni jeex na dem nañ bàyyi ko man ma bàyyi a nekk roy waay ci wàllu koom ñoŋal ko a kaay moo ñu ko xamal les ko sénégalais yu nekk Italie seen kër ga fa tàkk xam seen benn doom bu am ñetti at maamam bu jigéen fa ko fàtte ca néeg ba lakk ga fekk fa mu mujj faatu ñàkk ba bakkanam leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy na nabu lay fecc kat yóbbu nañ ko ca kaso ga mook juróom benn ñoo xam ne fañ leen a jàpp ne njort ne ñoo rey Aziz Dabala fecc kat ak waali mooy rey gu ñaaw gu bon ga amoon ca Pikine rek turbine yéen kaay moo ñu ko xamal vox populi ne faa leen di wax juróom ñu jàpp yóbbu leen ca kaso ga ka njëkk mooy nabu lay ak Mamadou Lamine Diaw Serigne Sarr Omar Gueye Assane Diaw Ousseynou Diaw ak Fallou Diop l'observateur ne Nabou Leye moom fa dugg taq bu baax ci yëfi ndeke yow seetal moom fa doon wax ak ñi nga xam ne ñoo rey Aziz lu ëpp ñeenti waxtu ci guddi mu ngi waxtaan ak ñoom ginnaaw bu ñu defee ñaawteef bi li tax ñu tëj ko kaso nag ak lañ koy toppee moom Nabou Leye mooy fa ànd ñoo xam ne fa ñoo def ñaawteef mooy rey nit ba pare moom Nabou Leye complice la maanaam fa jàppale ñi rey Aziz maanaam moo jaay Aziz ci gàttal te ndeysaan Aziz Dabala fa wax naan Nabou sama doom la bëggoon ko fonk ko yàgg koo taxaw tey lii la ko nabu lay fayee moo tax gp yéen a kaay nee na waa Pikine fa ñoo am mbetteel trop musuñu woon na xalaat njortu ne Aziz la koy rey nabu lay fa cay dugal loxom ak fi Aziz jaar moom moo tax fi mu toll nii doo xam kan ngay wóolu sa xaritu benn bakkan mën naa faat sa bakkan wala mu faatlu la fan la nit di muccee léeg si ko yéen a ne nabu lay kay yàqu na ne awa géy ndax liñ koy toppee ci ay tuuma fa diis lool libération ne faa lan di wax secret enquête ba bu jigéen bu Aziz Dabala moom fa wax ne nabu lay ci boppam moo ko xoo na ko Aziz daal koo jot téléphone xamuñ fu mu nekk nañ dem këram ku mel ni fa xamoon li franc wave bañ jël ca compte Aziz Baak yéen a yokk tamit ne am na ñoo xam ne ci TikTok bi lañ nekk di ay influenceur ak ay journaliste ci Facebook bi yoon fa leen a xoolu takk der yi fañ leen a convoqué fañ leen a plainte ndax fa xam ñun ci tuumaloon te ñooñu bokkuñ ci wane seen photo jéebaane leen te ñoom taqawuñ ca l'observateur na ko TikTok bi kay gars ñi ngi ci waaye danger ci de ay règlement de fayantoo hmm, waa ma ne moytu leen réseaux sociaux lu ci baax waaye xam na lu ca bon gis nga WhatsApp Facebook ak TikTok ku ma daal del seetaan bañ a commentaire bañ a partagé waxuma laak nga oote ci ay live di wax loo xam ne bu la yoon xooloo amoo ci benn firnde fañ lay tëj kaso rek su boobaa nag xay fa lay xenu mbokk yi li ñoo fi rusee woon ci ay xibaar Alfayda FM juróom-ñeen fukk yu toftal la benn xibaar yi ma feggoo woon ci Kakodou Seck keneme ci machine bi ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñi doon teewlu xibaar yi kàddu gi doon bàyyi ko si studio Alioune Momar Lo ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé fii ci dëkk bu sell bi di Medina Baye ñu ñaan rek yàlla muy borom jàmm ku mu may jàmm nga am jàmm yàlla ñu yàlla may jàmm fu di dégg jàmm di gis leen leen di ànd ak programme yu am solo yu Alfayda FM jërë ngeen jëf. xibaar yi ak Mariama Ba.